sëriñ moor sëy sëriñ moor sëy mi ngi feeñ jamono ci atum 1874 ci dëkk bu ñuy wax kër moor abdoulaye sëy kër moor abdoulaye sëy bii nag di dëkk bi sëriñ moor sëy feeñee jamono mi ngi nag ci suuf si nag di njàmbur ci atum 1874 nag dafa feeñee jamono di doomu ku ñuy wax sëriñ moor alsaan sarata sëy ak ku ñuy wax soxna faalooloo soxna faalooloo mii nag doomu ku ñuy wax sëriñ ibrahima ngóone jeeloo la sëriñ ibrahima ngóone jeeloo mii nag ci askanu ndaam wi itam nag la bokk doomam Bethio Lo moo meññ ku ñuy wax sëriñ Mor Sëy sëriñ Mor Sëy mi nag bokk nag ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim teñ gën koo xam nag ci lampum njàmbur moom nag sëriñ Mor Sëy nag am na ñu bokkal soxna Faaloo Lo mi ñu mën caa ràññee ku ñuy wax sëriñ Moodu Sëy ibnu soxna Faaloo Lo ak sëriñ Mor Alsaan Sarata Sëy sëriñ Abdu Gànnaar Sëy ibnu soxna Faaloo ak ku ñuy wax sëriñ moor Alsaan Sarata Sëy soxna Kala Faaloo Sëy bintu soxna Faaloo Lo ak sëriñ Mor Alsaan Sarata Faalo Lo ak sëriñ moor Alsan Sarata sëy soxna Maam Maane sëy bintu soxna Faalo Lo ak sëriñ moor Alsan Sarata sëy ak moom sëriñ Mor sëy nii ibnu soxna Faalo Lo ak sëriñ Mor Alsan Sarata sëy kon ñaar ñu góor la bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen ak moom muy ñett ak ñett itam ñu bokkal waajur wu jigéen ak waajur wu góor kon soxna Faalo Lo mi ak sëriñ moor Alsan Sarata sëy juróom benn bant nag lañu am ci kaw suufa juróom benn bant yooyu nag ñu am ci kaw suuf na kenn ka nag la ñuy waxtaane di sëriñ Mor sëy mii na ñu gën koo xam ci lampum njàmbur moom sëriñ moor sëy lampum njàmbur nag bi matee dal alxuraanul karim waajuram sëriñ moor alsaan sarata sëy nag moo ko dalal alxuraan nag ci dëkk boobu mu feeñe jamono di kër moor abdoulaye sëy ci suuf soosu nag di njàmbur ginnaaw bu mu jógee ci loxoy waajuram sëriñ moor alsaan sarata sëy nag sëriñ moor alsaan sarata sëy nag mi waajuram jébbal na ko ku ñuy wax sëriñ moor saasum jaxate ci dëkk bu ñuy wax kër jaaga ginnaaw bu mu jaaree ci sëriñ moor saasum jaxate nag ci dëkk boobu nag di kër jaaga demaat loxoy sëriñ moor biraama jaxate moom sëriñ moor seynu fi mu jaar ci wàllum njàng ba tey dem na itim ci loxoy sëriñ moor ma yaasin silla ci ay numaan laataa am njàngam nag di noppi la sëriñ moor jaxate nag di doomu ndeyam ñëwoon nag ci dëkk boobu nag di kër moor abdu sëriñ moor jaxate moom nag di doomu ndayam nag moo ko yóbbu ci loxoy ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim kon nag ma wax leen na kii di sëriñ moor sëy lampum njàmbur nag naka la def nag ba ñëw ci loxoy ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim bi mu tollee nag jàng nag laataa nag Mor Jaxate moom nag di doomu ndeyam nag ñëwoon nag ci dëkk boobu nag di kër Mor Abdou ci diggante boobu nag la ko sëriñ Mor sëy lampum njàmbur gis sëriñ Mor ko yóbbu nag ci loxoy ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim booba nag ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim mi ngi nag ci dëkk bu sell bii nag di Tuubaa ginnaaw bu ko doomu ndeyam jooju nag indee nag ci loxoy ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim waajuram wii nag di sëriñ Mor Alsaan Sarata sëy jël si woon na doomam jooju nag di sëriñ Mor sëy lampum ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim mu egsee nag ba nuyu nuyonteeg ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim seexul xadim nag laajoon na ko lan moo nekkoon ay tànkam mu di ko wax ne sama doom ji nag di sëriñ moor sëy nag laa doon jël dafa toll ci njàngum alxuraan wala dafa toll nag ci am njàng te moom laa bëgg mu eggale ko ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim nag doon na sàkku nag ci moom nag mu bàyyi fi doomam jooju nag di sëriñ moor sëy mu di ko xamal na ñun de dañoo bokk ci askan woo xam ne nii jàng ak jàngale rek lañ xam te sëriñ moor sëy mii nag ci jàng nag la toll te bëgguma itam nag bu ëllëgee ay moroomam nag di ko xarab wala di ko xas ci ñàkk a jàng nag gum ñàkk a jàng sëriñ tubaa seexul xaddim nag doon na wax waajuru sëriñ moor sëy moomu di sëriñ moor alsaan sarata sëy di ko wax ne soo fi bàyyee moor sëy mii danaa def xam-xam bu toll ne xam-xam boobu moor abdoulaye sëy amoon ba defaale ci sax nag lu sëriñ moor abdoulaye sëy amul woon loolu itam nag mujj nag waajuru sëriñ moor sëy bii di moor alsaan sarata sëy tim loolu ko sëriñ tubaa seexul xaddim wax itam doy na ko ba tax mu fob doomam jooju nag jébbal ko xaadim rasul kon lii moo indi sëriñ moor sëy nag ci yoon wi sëriñ tubaa seexul xaddim nag boole koog maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru di ko wax ne Mor Sëy mi sama dooma laataa maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru sax ku baax ki Sëriñ Tuubaa seexul xaddim yóbbu woon na ko nag ci dëkk bi nag di cumb leen nag ngir mu wéel njàngam mu boole woon koog Sëriñ Xamsatu Jaxate Sëriñ Balla Joor Mbàkke ak Sëriñ Omar Mbàkke bu Mbàkke Kajoor ginnaaw bu ñu leen ci loxoy Sëriñ cumb leen leneen Sëriñ Tuubaa seexul xaddim jébbal maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru dem ci géej gi Sëriñ Tuubaa seexul xaddim di dem ci géej géej gi nag kii di sëriñ moor sëy mu ngi ci loxoy maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru di jàng ak di jàngale ba ni ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim jógee ci géej gi bi sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim nag jógee ci géej gi dem nag ci réew mi nag di gànnaar gànnaar googee itam sëriñ moor sëy nag dem na fa ci ndigalul maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru mook sëriñ Maxtaar Bintaloo ñoo àndoon rakkam ji ñuy wax sëriñ Abdu Sëy gànnaar itam jébbaloon na ko sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ci gànnaar sëriñ Abdu Sëy moom sax gànnaar la def loolu moo waraloon ñuy wax sëriñ Abdu Sëy bu gànnaar ginnaaw gànnaar ca yéen jolof ca yéen jolof itam kasaalika ginnaaw ca yéen jolof njaareem njaareem itam daana fa dem nag di seeti ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadiim mu wéy nag des nag ci ba nim jote ngërëm nag ci ku baax ki bisub keroog di ko ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadiim di gërëm leetar la bindoon maam Ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru ak i way na ko joxal ma ko nag sëtu moor abdoulaye sëyba ñu teewlu way yi sëriñ tubaa seexul xadiim boole woon ak leetar ngir nag di gërëm sëriñ moor sëy lampum njàmbur Mbuur ñu teewlu way yi sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim boole woon ak lettre ba fa masaayaaka yaa xayral baraaya jëlliyatun la daa kulli shaxsin xalbuhu laysa maxmuura xamaytu xilaami an siwa maa yafi rida alayka salaama man bihi sirtu mamuura madaxtuka inda albahri xataa ka annani qataltu laayna lam yazal qablu maxruura mata ma aradtu alxatt arshadatni ila rida man lahu qalbi mudda dahri masrura la stajaaba allahu fi kulli naafiin waxat saara kulli man masa yaaka mabrura waaye yooyu moo àndoon nag lettre bi sëriñ tubaa seexul xadim joxoon maam Ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru di ko wax ne joxal ma ko sutub moor abdoulaye sëy ba ginnaaw bu sëriñ moor sëy nag jotee ngërëm ci loxo loxoy ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim dafa dil si wànn ci dëkk bi mu cosaanoo di kër moor abdoulaye sëy ci njàmbur ba ci atu ginnaaw ba mu ziyaare see ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim ci njaareem la ko sëriñ tubaa seexul xadim ndim jox suuf nag di ko wax ne nag bu demee ba kër Mor Abdoulaye Seye mu ànd nag lu tollu junniy jéego nag di un kilomètre mu sanc fa ab dëkk te tudde ko daaru salaam moo tax nag ci dëkk boobu sëriñ Mor Seye sancoon ci ndigalul ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddim ci 1919 di daaru salaam Seye ñu gën koo xam ci daaru Seye ci dëkk boobu sax lañ ko denc ginnaaw bu mu génnee àdduna ci 1957 wii nag des nag ci dëkk boobu nag di daaru Seye di yar di jàng ak di jàngale ci kanamu nag mbooloo mi ko yaakaar ngir Xaadim ginnaaw foofu itam sancaatoon na beneen dëkk jotti faro mi ngi nag ci wetu dëkk bii nag di xàmbal dende itam ak dëkk bii nag di daaru asan di dëkk boo xam ne sëñ daaru asan njaay itam mooy ku ko gor sanc na itam dëkk bu tudd mbii bi mi ngi ci wetu dëkk bii nag di daarul muxti ak yeneen ak yeneen i dëkk nag ak i daara nag yu jëmm ji nag di sëriñ Mor Sey lampum njàmbur nag goroon di yar di jàng ak di jàngale comme nag ni ko yoonu murit nag baaxoo nag di defee waaye nag li ëppoon ci liggéeyu jëmm ji nag di sëriñ Mor Sey mooy jàng ak jàngale ndax alxuraanul karim kat moo nekkoon aw sasam mu daa def itim nag tax na itim nag lu takkoo takkoo takku ci yoonu murit itim nag jaar nañ ci daaram jooju moo xam njabootug cheikh masamba mbàkke gi la muy sëriñ moodu faati xari mbàkke ak sëriñ mouhamadan jobbe mbàkke magam njabootug cheikh mahamadou lamine baara mbàkke gi itim sëriñ abdul karim mbàkke moom cheikh mahamadou lamine baara mbàkke itim jaar na ciy loxoom ganeen sëti xaadim rasool yi itim ñu takkoo takk itim jaar nañ nag ci daara jooju lii itim di biir réew mi itim ñu bare bare bare itim sàkku ji nañ xam-xam itim ci biir daara jooju ndax daara jooju kat daaray sëy lampum njàmbur nag ko amoon relation la ak mag ñi toppoon ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim firndeel na ko nag ci ay way way nag yum def nag ci ginnaaw mag ñi wala ay way nag yum def nag ci kanamu mag ñi ñu mën cee ràññee ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim mi mu foboon léppam nag jébbal ko ba sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim itam defal ko lu rëy rëy rëy loolu itam nag tax na nag mu way ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ci ay way way way way way yi mu def nag ci ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ci nekkinu ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim la moom sëriñ Mor Sëy ma ngi cay tàgg nag jikkoy ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim xaddiim ciw melakaanam ak nekkinam nag wu sëriñ tubaa seexul xaddiim nekkee woon ñu teewlu nag lenn nag ci ay way yu sëriñ moor sëy jagleel nag ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim durnaaka yaa cheikh bil xufraani saa talabi minkum musolano naynal majji bil adabi man saarakum sarmadan lillahi mutadiyan naalal muna walawla joodan bila sababi xaniitu anil ashyaaxi tëran li fadlikum zimaamul wara mal fadlu am xayrikum yulfa man raama fi saari waxti niddan li ahmada laxat saara yowman lil musibaati la ikfa ubayduka haasa xad ataaka zaa'iratan baa'idan anil awtaani faqra lahu dayfa fa yaa cheikhu inni ji'tuka al yawma raajiya bi lubsin wa ridwaanin wa amnin bilaa zulmi wala zaala man yaatika bi rid an qaaiba bi maa raaba min basin wa maa raaba min ummin ginnaaw bu ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim génnee àdduna ci atum 1927 moom sëriñ Mor Seye nag jooy na ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ci xeetu ay way way way nag yu baree baree bari nag yum def nag di jooy ku baax ki sëriñ Tuubaa Tuubaa Seexul ngir wéetal nag leen wéetal ci kaw duniyaa bi marché bii nag mi ko def nag ginnaaw ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim bi mu fi bàyyi ko ci atu 1927 di jooy nag ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ñu teewlu ko walaw kaanati dunya taduumu li la kaana rasulullahi xayran wa baaqiya ala fakku ala cheikhin badiin imaamu naasi ustaasin mutiin diina min baadi inxifaadin abaana alxaq bilfardi shafii xadiimun linnabii xayril baraya aqil anwaari min noori samia yore kullan min al axyaari nahjan bihi nahwi dilayata bil furooy fasur turban xawaa cheikhan xabira nasihan lil bariyati saaru kooy muqimu cheikhi fi tuuba azim fa tuuba arduha ardul baqi ayaa cheikhal masaayixi xusta sabqan bihi nultal al siyaadata fil jumooy fatal fityaani soo fadlin wa maddin wa man naalal fasaata fil badin yurattili kulla ma waxtin waxinin kitaaba lay saa fahmin xushooy suhooru cheikh fi dunya suhoorun bihi taaba samaan la dal wuquni wa shamsu diini xat aflat jaharan la dal usturi min baadi tulooy la niama cheikhu man xaaza jahra min al asraari maa fawxal jamii wa man yaxfoo bi asaari nabi rasulillahi si nasabi rafin la niama cheikhu man xaasa sabqa min arrahmaani sil kanafin mani la nihmal fardu maa fi lxawmi mislun lahoo daharun la dal mawla samia alaa saboo ayal axyaari daman ala ardin biha rawsul mutin fa kun saabiran fa inna sabra yaati bi xayrin wal maayati laa du mooy laxat bàkkat dunya faaxdan li cheikhin xawal anwaar saa adabin fu dooy ginnaaw marché boobu ngeen doon déglu nag dafaatoon na beneen marché ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ci biir marché ba nag mag ñuy waxee nag kawe ku baax ki tubaa seexul xaddiim gi mu amee woon ci kaw suufa ca kawe googu nag la tënk nag marché ba jagleel ko ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ñu teewlu ko bakay na ala cheikhin xawal majd wal ula shafiil wara yowma taxaabuni wal xashri xadiimu rasulillahi naasir diinihi loo sabqa wa taqdimu fi sirri wal jahri wa cheikhu xaqan wa chuyuqon yaaluhu wa man raama cheikhan gayrahu baa bil faqri isa ma sakartu acheikha faadat madaami wa faadat du mooy fii fuyudin alal bahri noonu itam ni la ko toppe woon moo xam ci dundu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim moo xam nag bi ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim génnee àdduna ku delluwaat ci kaggu sëriñ Mor Seye daa yëg ni ku daa bind la ci kaw ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ndax xam na ne lim am lépp nag ku baax ki sëriñ sëriñ tubaa seexul xaddim ci la ko jëlee magi ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim di mammoor jaara magi mag ginnaaw bu mu génnee àdduna moom mammoor jaara sëriñ moor seyitim jagleeloon na am marché nag kii di mammoor jaara ma ngi cay tagg nag jikkoy mammoor jaara ak wu melokaanam ak itim nag dëdd gu ñu mammoor jaara dëddu ci kaw suufa ñu teewlu marché bi mu defal mammoor jaara magi mag ginnaaw bu mu génnee àdduna moom sëriñ moor sey mooy li cheikh ahmadu waxtu asra du mooy tanhami fawqa sudori shaqiqu cheikh الشيخ ممر جار هاشا مواهبه من المولى الغفور تقى باري البرايا وقبل فضل لخبر حاز من شيخ مجيل فريد الدهر أحمد من أتاه إلى العاصي من فيد المنير وقرآنا يرتل كل وقت به يعطى لنا كل الخيور ولولا بمبا خطب العصر شيخي بكيناه على أمد الدهور لقد بكت السماء لفقد شيخ عديم الشكل في فضل كثير هو المحبوب في fi kullil baraya alayhi dahru ridwaanu xadiri fa ridwaanun wa xufraanun jamia ala xabrin xawa badral budóori fatal fidyaani ahmadu man taraahu ala hadiyi nabi kantil faqiri xabawullahu fi dunya manaahu wa fi l axirati taraahu ala suróori marché boobu nag la jagleeloon magu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim di mammoor jaara ba tey diggantee mag mammoor jaara doomu mammoor jaara bii ñuy wax soxna màggat mbàkke ginnaaw bu sëriñ may yaasin ummi jang génnee adduna soxna soosu di soxna màggat mbàkke bintu mammoor jaara sëriñ Mor Sey lampum njàmbur itam lañ ko jébbalaatoon ba tey digganteem ak maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru ndax ginnaaw bu mu jébbuloo ci ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddiim sëriñ Touba Seexul Xaddiim maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru la dénkoon sëriñ Mor Sey ba tax na sëriñ Mor Sey ci loxoy maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru itam la jote ngërëm ndax lettre bi ko sëriñ Touba Seexul Xaddiim bindoon di ko ci gërëm boole kook ay way ci loxoy maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru la ko tegoon maam Thierno itam moo ko jox sëriñ Mor Sey kii di sëriñ Mor Sey itam bi mu nekkee ci maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru wéel na fa am njàngam di jàngitim ci jëmm jooju di maam Thierno loolu na bi mu jotee ngërëm ci ku baax ki Serigne Touba Seexul Xadim tam Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru na kóllëre ndax bi muy nekk ci loxoy maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru maam Thierno itam jàngal na ko te maam Thierno itam nag def na ci moom lu bare bare bare bari moom jëmm jooju di Serigne Mor Sey loolu itam nag tax na bi maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru génnee àdduna ci ci atu 1943 te njëgaloon sëriñ Mor Sëy defoon na am marsiya nag bu yaatoo yaatu ci borom daaru moom sëriñ Mor Sëy ñu teewlu marsiya ba alaa rubba naayin xat naa cheikh saa fadlin dana daxootan fi sabki wa dami fi lhatli wa cheikh maa fi lxalqi bil ilmi wa tuqa masirun lahu faafal xalaay xabil basli alimun adibun soo wafaahin bi simmatin wasaada bihil aqraana muskaana fi tifli ayib allasi maasaala li naas farxatan walaahu daama naas fi lfaqri waljahli nafayta an il aqraani jiwaan wa faaqatan walaaka daamal jooma fi naasi bilmahli wa cheikhu xaqan wa cheikhu yaaluhu walaahu baada cheikhi kaana ala naqli cheikhun doonahu kullu faaxiin bihi fusta abwaabal masiyaati bilkulli la anta xat fatal fityaani xarmu xuróoni simaamun waraa fi lbasi wa durri wa zulli wa daaruka daaruna العلم والدين والتقى وبيتك بيت المجد والسهد والعلا تجدد ما لشيخ مسكان غائبا ومسكان في أيدي رجال في السفل تميل قليل الله نجل محمد مواهبه في الخلق كالبحر والوضع تسكرت منانا وقنقود في البكاء ودمي بتسكار تلك على السير أيا سهي waskuru fettu mbar géej gi wal géwal yi wa haasiyi boyda cheikhu fi sayri wa naq laxad warisal ajdaada bil majdi wal ula wa bi sikri wa tartili wal xaqi wal adli sabaxta xoolal ilmi xablu mujahida hawa nafsi wa cheytaani wal kulli fil kab banaa daara mootin fil falaati muhaajira wa daaruka daarul mootir daarak la dal kulli malaasun isaa madduru yaatika baxtatan basoolun isaa maal faxru aatin alal ilal xafli la anta la fi yuusika cheikhuka bil wara bi ansir jami an naasi bil faddi wa naf ala ala cheikhin al waxtu fakkoo bi ammikum wa ammukum fi chehri kal yaddi warij tasakkartu wala takaddarat al ayaamu muskaana xaayiba an il ahli wal awtaani lillahi sitam fa tabki kajoorun kama njaambur assiinu wal bawol bi xaysil wara yufallasi faaxa fi l as kasa bakkati dunya li faqdi habibina wa hasa adimu shakli fi l jiili wal misli ayaa rabbi baarik naslahu wa iyaalahu wa awlaadahu turran maal ahli wa sham nekkee ci loxo loxoy maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru kii di Cheikh Ibrahima Diop yi ñëwoon na fa nag gana si maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke daaru bi mu ñëwee ci ngan googu mu amoon ci maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru ci sëriñ Mor Sey la ko maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru dalaloon ginnaaw bu mu fa nekkee nag séqoon na ay way ak kii di sëriñ Mor sëy ngir ñu jagleel ko borom daaru ci biir wayee nag ña ngi cay tagg maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru ci njariñ lu maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru am wayu yéeme nag lañ ko def nag ñoom ñaar ndax bu kenn ki wayee wenn way ka ca des moom mooy way way wa ca topp noonu lañ ko jagleel ba xasida ga jeex ñu teewlu way yi nga xam ni seex ibrahima Diop almasari yu bokkoon ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim moo gane si woon maam Cerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru ci dëkk bii nag di daaru naan dinaa bu mu fa ñëwee nag maam Cerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru ci néeg sëriñ Mor Sey nag la ko dalaloon booba nag sëriñ Mor Sey mi ngi ci loxoy maam Cerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru ci ndigalul ku baax jamono jooju itam sëriñ Mor Seye mi ngi jàngale ci daara ji ginnaaw bu fa Cheikh Ibrahima Diop almasar yu ñëwee nag séqoon nañ ñoom ñaar ay way ngir jagleel ko maam Ceerno Ibrahima Faati ñu teewlu way ya yaarifan waarisal irfaani bil xidami wa faayixan jiilahu bil ilmi wal xikami anta allazi lam tafan fi dahri shaasharafin wa shashtahaarin xakaa naaran ala alamin aljaxfal alfaayiqu al aqraani fi xasabin wa fi uloomin wa fi joodin wa fi karamin manaaxibul xayri xasaarat ala yadihi bila sharikin الذكرى في الجيل كلهم الزاهد الراشد الراقي إلى رشد الفاضل العالم ابن الفاضل alami ala ala kulli aalin aaxirin wazari mutahiran min jamil aybi wal isami saada almashaayikha wal ahbaara xaatibatan xatta hawa sabqa fi maydaani fadlihim xawli lana kulla ma lam tuwallihu ahadu min almawaahibi anta albahru linyaami ya cheikh ya man tusayiru alxumra saa jaladin ataala umraka ya asal majdi walkarami bi jeeyi afdali xalqillaahi ti waraayin salla alayhi ilaahi baari u nasami maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ko amoon kóllëre la ak Cheikh Massamba Mbàkke ba tax nañu mook Cheikh Massamba Mbàkke nekkoon nañ ay xarit loolu itam taxoon na Cheikh Massamba Mbàkke naw gum nawoon sëriñ Mor Seye ci wàllu njàng ak njàngale ñaari doomam yi biñ matee dal nag li di alxuraanul karim muy sëriñ Mouhamadan Jobbe moom ma sàmba Mbàkke ak sëriñ Moodu Faati Xari moom ma sàmba Mbàkke ñoom ñaar sëriñ Mor Seye la leen jébbaloon ci wàllu njàngum alxuraan keroog bi muy jébbal Cheikh Mouhamadan Mbàkke sëriñ Mor Seye bind ab lettre Mbàkke jébbal ko sëriñ Mor Seye ak sëriñ Mouhamadan Jobe koy wax nag ca biir lettre ba di ko wax ne damaa bëgg nag sëriñ Mouhamadan ñii nag sama doom nga def ko nag na sa doom jàngal ko nag lii di alxuraan ak bépp xeetu xam-xam nag boo xam ne nii nag war na koo xam junni bii ànd ak lettre bi nag ak sëriñ Mouhamadan jàpp ci nag ba ci kanam danaa la yónnee laneen ñu teewlu lettre bi Cheikh Massamba Mbàkke boole woon nag Cheikh Mouhamadan Jobe di doomam jébbal ko sëriñ Mor Seye ngir sëriñ Mor Seye def alxuraanul karim ci sëriñ Mouhamadan Jobe ak nag lii di xam-xam هذه الحروف كان الله له من أبواب البرية والمعروف إلى المريد الشقيق الشيخ العالي المرتضى عنه ردا يفوق يوما العلام الفهام المشار إليه ببنان العناية والسبق قبل السلام التام والإكرام العام مع الإعلام بأني وجهت إليك محمودا لتصير فيه من توى من نيتك الخالص لي قبل اليوم fataalama ashabta ilayya min nahwi haza wa kuntu kama tuhibu mithla dhalika walakin aqbit haza alwaxt wa haza ibtidaa wa sayakunu li intihaa wa amartuhu bi an yakuna ala yadayka faj'alhu kabnika wa alimhu ma shi'ta min nahwin wa arodin wa lugatin wa fiqhin wa kulli ilmin kama la yaxfa alayka min nuurillahi wal isharatu takfi ginnaaw bu sëriñ Mouhamadane Diobé nekkee nag ci loxoy sëriñ Mor Seye ba jàng alxuraan nag nag ba tàmbalee bind nag ay way sëriñ Mor Seye nag bindootoon na ma sàmba lettre boole kook nag wayu Cheikh Mouhamadan Diobbe bindoon ngir di ko wax na sëriñ Mouhamadan Diobbe kan mi ngi góorgóorlu jàng na nag ba tàmbalee bind ay way way yii ma la yónnee sax moom moo ko bind Cheikh Massamba Mbacke itam bindaatoon na lettre sëriñ Mor Seye ngir di ko wax ne gis naa wayi waxal ma Mouhamadan Diobbe nag mu gën a góorgóorlu nag ci lool nag muy def kontaan naa ci lool nag waaye nag lettre bii ma la bind nag joxal ma ko ko ngir nag mu nemmikul ma sama yenn taalibe yi nag yu nekk foofu nag ci tund wi yi ñu teelu lettre bi Cheikh Massamba Mbacke bindaatoon Serigne Mor Seye ginnaaw bu Serigne Mor Seye bindaatoon lettre nag Cheikh Massamba Mbacke ngir di ko wax ne Mouhamadan Diobé mi ngi ma joxoon jàng naa alxuraan ba jàng nag ay way di ko bindantu way yii ma la yónnee nag moom moo nekkoon way yim tàmbalee woon a bindantu Cheikh Massamba Mbacke bindaatoon ko lettre nag ngir di ko tontu di ko wax ne gis naa way ya kontaan naa ci Mouhamadan Diobé ci way yooyu mu bind waaye nag lettre bii nag maa ngi la koy jox nag ngir nag mu yital ma ko nag yenn ci sama taalibe yi nekk foofu ñu teewlu lettre bi fay la cheikh muhib بالمحمود ممرسي وقى الله شر كل شيء سلام يعلمك بأني أحب أن تبلغ هذا إلى جميع التلاميذ في نجامري فاجتهد في هذا غاية ونهاية وقل لمحمودا فلينقل كثيرا من النسخة لجميع من هنالك ورأيت مكتوبك المستحسن العجيب الشأن الحامل وبشرت بكل خير أمين وبلغ سلامي إلى الابن غاية السلام لا يخن وقل له رأيت أبياته الحسنة المستحسنة فليجتهد في نحو هذا هذا الأمر كل وقت وحين وقل له إن أصلح ذلك صلح الأمر كله Cheikh Massamba Mbacke itam ginnaaw bi itam fabaatoon na beneen doomam itam jébbalaat ko Serigne Mor sëy muy Serigne Moodu moom soxna Faati Xari Serigne Moodu Faati Xari sax ci loxoy Serigne Mor Sey moom sax la jànge alxuraanul karim loolu itam tax na kóllëre googu sëriñ Moodu Faati Xari sàmmoon na ko ba tax na itam am na lenn sax ci njabootam yu mu jébbaloon kër googu ngir ñu jànge fa alxuraanul karim loolu moo waral taawam bii di Serigne Cheikh moom Serigne Moodu Faati bàyyi koo kóllëre googu itam sàmm na ko barkeelu itam ci jaar googu waajuram jaar ci loxoy sëriñ Mor Sëy loolu itam moom moo taxoon sëriñ Cheikh moom sëriñ Modou Faty Khary foboon caatum sëriñ Modou Faty Khary di maam fàllu Mbacke jébbal ko kër googu itam ngir barkeelu ci jaar gu fa waa waajuram jaar ba tey diggante Cheikh Massamba Mbacke ak sëriñ Mor Sëy lampum njàmbur doomu sëriñ moor Sëy bii ñu tuddee woon soxna Aminta Sëy kii di Cheikh Massamba Mbacke dëkkoo woon na ko soxna Aminta Sëy moom nag maam Cheikh Anta Mbacke borom dërëm ak ngërëm ko njëkkoon a yore Cheikh Anta Mbàkke nag la ko Cheikh Massamba Mbàkke yor ba tey sëriñ Mor Sëy lampum njàmbur tudde na doom kii di Cheikh Massamba Mbàkke ndax sëriñ Massamba Sëy bu sëriñ Mor Sëy Cheikh Massamba Mbàkke la ko faye ginnaaw Cheikh Cheikh Ibrahima Diop almasara la réew sëriñ Mor Sëy la woon ba tax na itam bi mu ganasee maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaama daaru ci dëkk boobu nag di daaru Marnaan maam Ceerno itam ci néeg sëriñ Mor Sëy la ko dalaloon loolu itam taxoon nañ ñoom ñaar séqoon nañu ak kóllëre ba séqoon nañu ay way yoo xam ne maam Ceerno Ibrahima Faati Faati Mbàkke ndaamal ko wayoon loolu itam taxoon na diir boobu Cheikh Ibrahima Diop almasari defoon ci néeg Serigne Mor Sëy ci bim gane see maam Cheikh na Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru jikko yum seetlu woon ci Serigne na Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ci jagle gu suñ borom may maam Cheikh na Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ci seede nag mu seede ci maam Ceerno defar gu mu defar ay nit a boole waale ci Serigne Mor Sëy mii ñu teewlu ko wa kam aghna wa aqna min faqirin wa kan ala xaqiran sa ixtibaatin wa si jamin ilayhi aqi intisaabin yakunu kapaate silla aw mapaate wa si ra'yin sadidun wa si ra'yin yuwaashiru wa sadidun fa maxtaar wa mumar waaye yooyu la Cheikh Ibrahima Diop almasar yu bindoo doon ci seede nag jàmbaar yi maam Cheikh ni Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru yor ci ndigalul ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xadiim moo xam sëriñ ma paat silla sëriñ Maxtaar Bintaloo ba ci sëriñ Moor Sëy Lampum Njàmbur naarub gànnaar bi itam ñu doon woowee Abdoulaye Uldu ba def na ay wayi seede nag ci jëmm ji nag di sëriñ Moor Sëy Lampum Njàmbur ñu teewlu wayi naar bii def di Abdoulaye Uldu Yankooba def ci sëriñ Moor Sëy bana Cheikh Mamar Sëy lillahi jaamia yusbihu lil xayraati والفضل جامعا فأما خريب إن أتم بناؤه فله بروق العلم فيه لوامعا فتصبح مسن العلم تمتري كل حين تعم أخرى تلك البلاد هوامع تيغي سوس نار بوب def nag di Abdoulaye Ould Yankhoba mi ngi ko def nag ginnaaw bu mu seetee Serigne Mor Seye nag ci dëkk boobu nag di Daaru Salaam Sëy te Serigne Mor Seye nag naaloon fa jumaa ci ndigalul ku baax ki Serigne Touba Seexul Xadim ginnaaw bu mu gisee naalub Serigne Mor Seye boobu nag la seede way yooyu nag ci Serigne Mor Seye di wax ne jumaa maam jooju daal bu fekkeen sëriñ Mor eggale na ko danañ ci gis njariñ moo xam ci jumaa ji ak itim nag lii di xam-xam te dëkk ba jumaa jooju naar bi doon ko seedeel ñëwoon ci dëkk boobu di daaru salaam sëy fekkoon sëriñ Mor Seye tàmbali ko ginnaaw bu ko sëriñ Mor Seye tàmbalee bindoon na sax am mbind nag ngir jegleel ko ban bis nag la tàmbali nag loolu ju jumaam jooju mi ngi wax nag ci mbind moom bindoon moom sëriñ Mor Seye di wax ne ginnaaw bu ñu tàmbalee jumaay Tuubaa ji moom itim tàmbali na jumaam ji nag ci daaru njëkk a julli bisub ajjuma ñeenti fan ci weer wi di weeru korite ci atum 1371 ci gàddaay gi ajjuma ñeenti fan ci weer wi di weeru korite ci atum 1371 ci gàddaay gi mu dëppoog bisub vendredi 27 juin 1952 vendredi 27 juin 1952 ci la wax ne nag ci la ubbi nag jumaa jooju nag mu doon tabax nag ci dëkk boobu nag di daaru salaam sëy ci ndigalul ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadiim jumaa jooju nekk nag daaru salaam sëy sëriñ moor sëy moo ko fa tabax ci ndigalul ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim yal na yàlla fay yéene ñu teewlu li ci sëriñ Mor Sey bindoon bi muy tabax jumaam jooju uallimukum ayyuha nnaas anna awwala binaa masjidi Seex al akbar allazi kaana fi Tuubaa aama masasin wa masjidi allazi huna fi daari daari salaam karabdu aama ansasin ibtadaatu masjidi yawma almawlidi saani ashara min rabiil awwali aama ansasin wa salayna fihi yawma aljumati arrabia min shawaalin aama ansasin jaamu yàlla googu mu dëkkoo woon di ko def jàng ak jàngale googu mu saxoo woon di ko def sàmm googu mu sàmmoon alxuraan ngir donn gum ko donn ci ay maamam tax na nag bi mu génnee àdduna ci atum 1957 bindukatub xaadim rasuul ba di Cheikh Moussa Ka defal na ko ab marsiya wala jagleel na ko nag ay way di ñu wax nag koy sëriñ Mor Seye ni mu donne alxuraan ak ni mu dikke ci seexul xaddiim ak ni mu fonke woon lislaam ñu lu ko Cheikh Mamar Seye xaritu Bamba fukkuraat la Cheikh Bamba defar xolam ba waxtu sixaari la dikk ci Bamba waxtu kibari la ko waar yow mu raamal xamu ci alxuraan mbaa wilaaya mbaa xam-xamu diraaya loolu la ko Cheikh Moussa Ka seedeel bi mu génnee àdduna sëriñ ma yaasin ummi jëng wala réew sëriñ moor sëy la woon ndax diggante doomu bàjjen ak doomu nijaay lañu woon ndax soxna ummi sëy mi meññ sëriñ ma yaasin ummi jëng ak sëriñ moor alsan sarato sëy mi meññ sëriñ moor sëy ñoom ñaar ñoo bokk moor abdoulaye sëy loolu itam taxoon na nag ñoom ñaar ñoo amoon ak jaxasoo nag gu yaatoo yaatu ba tax na bi fi sëriñ ma yaasin ummi jëng bàyyi ko soxna màggat mbàkke moom maam moor jaara jàmbur lañ ko jébbaloon ba tax na am na ci ñaari bant ku ñuy wax sëriñ Aydara sëy ak ku ñuy wax euh, soxna bintu sëy soxna bintu sëy moom nag bi matee dem kër sëriñ Moodu Mbàkke gelongal lañ ko jébbaloon kóllëre googu mu amoon nag mag ñi nag moo xam mépp mag nag moom séqaloon ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xadiim séqoon nga kóllëre ak kii di sëriñ Moor sëy noonu mu ko amee woon nag mag ñi toppoon ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xadiim njabootu Xaadim Rasuul sëy dafa jël léppam nag jébbal mu mamadul moustapha mbàkke di ko xoolee xaadim rasul loolu itam tax na mook cheikh mamadul moustapha mbàkke amoon nañ relation bu yaatoo yaatu ci biir relation boobu ñu amoon ñoom ñaar diggante sëriñ ak taalibeem loolu itam tax na bi cheikh mamadul moustapha mbàkke génnee àdduna ci atum 1945 sëriñ moor sëy lampum njàmbur def na marché bu yaatoo yaatu nag ci jëmm jooju di cheikh mamadul moustapha mbàkke ngir nag di jooy doomu xaadim rasul boobu génn àdduna di cheikh mamadul moustapha mbàkke ñu teewlu marché bi ci sëriñ sëriñ Mor Sey lampum njàmbur defoon ci 1945 ginnaaw buñ ko yëgalee naka njëkk a wuutu xaadim rasuul génn na àdduna di cheikh Mamadul Moustapha Mbacke. xad jaa naay xaysil bariyaati muhammadin al Moustapha babil masiyaati wal xalifatu fii sirin wa fii alanin maa saala baynal waraayan fil madarraati aahin ala faxdi man fil jiili qaddamahu rabbul bariyati man naanal inaayaati cheikhun taqiyun wafiyul ahdi so karamin maa hammuhu xayr xayra taati wa xayraat taabat xilaafatu shaat manaafibo alay tabkil araadi ka samawaat alay tabkil layaali wal ayaam maa kasal wuddu jamian bil ashiyaat wal karimu lasi laasal kiraamu bihi badal xadiimi lasi abdal xafiyaat azlamat arduna mustamsuna garubat shamsu duha al mustafa al xaawil karama kasa bakkat turuxul islaami xaatibatan li faxdi man sirruhu yanfi ashaqawaat kasa tijaani wadda baaxi saasal yi wa kulluhum nooruhoo nooru wilaaya kasal muluk مع الأحبار والكرماء وكل سا نهجه نهج الحقيقات أكرم به من كريم فائخ وزري يولي المريد من أنواع السعادات قد جدد الدين دين المصطفى صندي تجديد أجداده سوي الفيوبات أيا قوم فكوا عليه دهر في أبد وفقده في الورى يبدي الفضيحات الحلم والجود في أخلاقه أبدا يمينه مسبلة تعطي العطيات وتعطي الوفاء بلا من ولا قدر يمينه kulla yawmin bul bushara ya rabbi ighfir lahu barid darihatahu wa hab liman zaarahu tathira afat ya rabbi barid wa anzil wabla marhamatin ala darihati shaykhin sil maqam shaykhun tabahhara fi ilmi shariati ma ilmi alhaqiqati sayi qabla awqat tawilan umrahum kasir mawahibum wa afi akfinihim min xuroraat bi jaay saydina xayril xalaaxi man na josafa reemal xiyaama ginnaaw marché boobu nag mu def ci cheikh mamadul moustapha mbàkke bi fi cheikh mamadul moustapha mbàkke bàyyi ko atum 1945 mook Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke nag séq nañ nag ay lettre nag yu ko Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke bind ginnaaw Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke Cheikh Mamadou Fadal Mbacke ku wóllërante woon nag Cheikh Mamadou Fadal Mbacke la ba tax na kii di Serigne Mor Sey nag def na ay way nag ci jëmm jooju nag di Cheikh Mamadou Fadal Mbacke Cheikh Mamadou Fadal Mbacke itam dëkkoo woon na doomu Serigne Mor Sey muy ku ñuy wax soxna Khady Sey bintu Serigne Mor Sey soxna Khady Sey moom sax am nag njaboot ak kii di Cheikh Mamadou Fadal Mbacke ñu mën caa ràññee Mbacke mi sëriñ maam Mor Mbacke moom Cheikh Mourtada Mbacke dëkkoo ca Bambey ginnaaw loolu itam nag jaxasoo woon nañ lool ba tax na kii di sëriñ Mor Seye nag def na ay way itam ci jëmm jooju di Cheikh Mamadul Fadal Mbacke di wax nag jikkoy Cheikh Mamadul Fadal Mbacke ñu teewlu ko amat xilaafatu cheikhin baariin fi fatani alxaaji fadlu lasi bayna al wara olima wa ibnu alxadimu lasi amat xilaafatu bayna al bariyati min assoi xat osima daamat manaaxiboo daamat fadailuhu man misloo fi jamil bihi li xat odima wal xabibu lasi laasal kiraam bihi loxool inaayatu min addaadi ulama tamamta maa xat nawahu cheikhu min amalin zurtal baqia wa surtal bayt al xarama an illadi fosta la yaxfa ala ahadin illa ala ahadin man xaquhu ulima ibnul xadim wa cheikhu dahri xudwatina ataala umraka rabbin xat xawaaqida ginnaaw way yooyu sëriñ Mor Sëy wayoon cheikh Mamadul Faadal Mbàkke kii di cheikh Mamadul Faadal Mbàkke itam bindoon na lettre sëriñ Mor Sëy ñu teewlu lettre bi فأزكى سلام وأتم تحية وإكرام إليك السيد محمد سيد وعينا بأننا خصمنا إليك خمسة آلاف في خدمة الجامع وأما القاسم فيخبرك بما كنا نتحدث به في البقعة المباركة هذه سجادة تصلح للصلاة فلا تنسانا من صلواتكم وجلواتكم ginnaaw Cheikh Mamadou Fadal Mbacke Cheikh Mamadou Bassir ibnu Serigne Touba Cheikhul Khadim bu amoon jaxasoo la ak Serigne Mor Sey Lampum Njambur na Cheikh Mamadou Bassir ibnu Serigne Touba Cheikhul Khadim bindoon na lettre Serigne Mor Sey Lampum Njambur ñu teewlu lettre bi ko cheikh mamadul basir ibnu sëriñ tuuba seexul xaddiim bindoon xalili wa xabibi fi saahiri wal maxfi cheikh mohamad say al maaruf manzilatahu inda walidina wa cheikhina fi kulli bukratin wa ashi loola itam tax na doomu cheikh mamadul basir bi ñuy wax sëriñ cheikh assu faal yoroon na doomu sëriñ moor sëy ju ñuy wax soxna sa sëy sëriñ cheikh assu faal bu ma cheikh mamadul basir ibnu sëriñ tuuba seexul xaddiim ginnaaw bu mu dëkkoo soxna busa sëy bu sëriñ moor sëy lampum njàmbur amoon na ca bant bu ñuy wax sëriñ xaadim mbàkke ginnaaw cheikh mamadul Mouhamadoul Bachir Cheikh Mouhamadoul Lamine Baare ibnu Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim foboon na doomam juñ doon wax soxna Aminta Lo Mbàkke jébbaloon ko kii di Sëriñ Mor Sey Lampum Njàmbur soxna Aminta Lo Mbàkke moomu bintu Cheikh Mouhamadoul Lamine Baara toog toogaayu Sëriñ Mor Sey jamono ba tey itam Cheikh Mouhamadoul Lamine Baara Mbàkke foboon na doomam ju ñuy wax Sëriñ Abdou Karim itam jébbaloon ko Sëriñ Mor Sey ngir mu jànge fa alxuraanul karim kon ak jaxasoo amoon nañ ko yeneen mag ñim séqaloon ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim noonu itam la meloon ak ñoom ci ak jaxasoo ndax kenn ku nekkat ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim nga doon seet ci sa moroom sëriñ moor sëy lampum njàmbur mi ngi génn àdduna ci atum 1957 ci dëkk boobu mu goroon féete fa di daaru salaam sëy ñu gën ko xam ci daaru sëy njàmbur ci bëccëgu gaaw ñetti fan ci weer wi di weeru gàmm ci atum 1377 ci gàddaay gi gaaw ñetti fan ci weer wi di weeru gàmm ci atum 1377 ci gàddaay gi dëppoog muy samedi 28 septembre 1957 samedi 28 septembre 1957 ci dëkk boobu mu goroon féete woon fa di daaru salaam sëy ñu gën koo xam ci daaru sëy ci njàmbur ginnaaw bu mu génnee àdduna ci bëccëgu gaaw googu ci ñetti fan ci weeru gàmmu doomu baayam bii nag di rakkam di ku ñuy wax sëriñ moor faati sëy moo ko taxawu ci dëkk boobu nag di daaru salaam njàmbur ñu denc ko nag ci dëkk boobu nag di daaru salaam njàmbur moom sëriñ moor sëy lampum njàmbur mi sëriñ moor faati sëy moomu taxawu nag sëriñ moor sëy lampum njàmbur ñoom ñaar ñoo maître sëy sëriñ moor sëy lampum njàmbur nag ay xalifaam nii la tëdd ci atum 1957 ba atum 1984 ku ñuy wax baay sëriñ sëy moo ko njëkk a wuutu nekkub xalifaam nag bu njëkk ñaareelu xalifa sëriñ moor sëy lampum njàmbur mooy ku ñu doon wax baay mbàkke sëy bale moo ko wuutu ci atum 1984 ba 2003 ñetteelu xalifa sëriñ moor sëy lampum njàmbur mooy ku ñuy wax sëriñ alioune sëy tiip moo ko wuutu ci l'an 2003 ba 2007 ñeenteelu xalifa sëriñ moor sëy lampum njàmbur mooy ku ñuy wax sëriñ mustapha sëy Louga sëriñ Moustapha Sey Louga mii nag doomu soxna Aminta Mbàkke la bu Cheikh Mamadou xalifa sëriñ Mor Sey Lampum Njambur ci 2007 ko nag ci toogaayu sëriñ Mor Sey Lampum Njambur bi ak mbooleem ay rakkam ak mbooleem ñum séqal sëriñ Mor Sey Lampum Njambur na ko mën na ko yàlla na ko def ci daraje seen waajur woowu nag di sëriñ Mor Sey Lampum Njambur ginnaaw googu nag biñ toogee xalifa taxawaloon nañu luñ tudde nga ay jëwriñ nag ca kër ga ci diiru 1957 ba ci 1993 ku ñuy wax sëriñ àlla sëy moo nekkoon jëwriñu kër ga doomu sëriñ moor sëy lampum njàmbur la ñaareelu jëwriñu kër ga mooy ku ñuy wax sëriñ jiili sëy doomu sëriñ moor sëy lampum njàmbur la moo nekk jëwriñ itam ci atum 1993 ba 2001 ñetteelu jëwriñu kër sëriñ moor sëy mooy kim tudde cheikh abdou samad mbàkke ibnu sëriñ tuba seexul xadim di sëriñ abdou samad sëy moo fi nekk 2001 ba nëgëni nekk itam nag jëwriñu kër ga bëgg ñu leen di ñaanal ñoom jëwriñ ñi itam yàlla na suñu borom fay seen yéene ak seen taxawaay itam ci darajay seen waajur ak seen mag yooyu nga xam ne nii itam ñoo leen samp ñu nekk ay jëwriñ ca kër ga sëriñ Mor Seye Lampum Njambur nag am na bis nag buñ koy fàttaliku mu dëppook fukki fan ak juróom-ñeent nag ci weer wi nag di weeru tamxarit di bis bi Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke jàppoon nag di ci fàttaliku xaadim rasul bis boobu itam nag daana ko màggal si Touba ci teewaayu Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke laataa Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke nag di fi bàyyi ko la ko doon xamal ne des nag ci njàmbur googu nag di fàttaliku bis bi saa bu dikkee ndax Touba sori na ci yow ci ay at loolu itam nag sëriñ Mor Seye Lampum njàmbur itam nag daana ko màggal nag comme noonu ko Cheikh Modou Moustapha Mbacke digalee ginnaaw bu mu fi bàyyi ko itam nag njaboot gi itam wéyal nañ bis boobu nga xam ne ni seen waajuroo itam doon ko def comme ni ko Cheikh Modou Moustapha Mbacke daa defee ci Touba ci bëccëgu fukki fan ak ñeent nag ci weeru Tamxarit màggal nañ ko ay ati ati at nag ginnaaw bu fi seen waajuroo bàyyi ko di sëriñ Mor Seye Lampum njàmbur ginnaaw gi itam la ci njaboot gi waxtaanaat itam ngir bëgg a ñaari bis yépp itam léegi nag ñu koy jàpp ay bis nag ginnaaw ñu màggalee daaru xudóos ba noppi muy ñaar fukki fan ak juróom benn ci weer wii nag di weeru tamxarit am na beneen bis itam nag bu ñuy fàttaliku sëriñ Mor Seye Lampum Njàmbur muy bis bi nga xam ne nii mooy bésub ngën gi mbindéef sallallahu taala alayhi wa sallam di bisub gàmm bisub gàmm googu itam xaadim rasul itam daana ko màggal ci njaareem mag ñu baree bari itam xaadim rasul itam santoon na leen fañ nekk ñu ko fa daa màggal sëriñ Mor Seye Lampum Njàmbur itam ci diirub li muy dund itam bisub ngën gi mbindéef sallallahu taala alayhi wa sallam googu gàmmu itam daana ko màggal nag ci njàmbur ginnaaw bu mu fi bàyyikook léegi itam njaboot gi itam ñi ngi wéyal bis boobu nag di guddi gàmm di ci fàttaliku comme ni ko seen waajur wa daa màggale ci ndigalul xaadim rasuul kon ñaari bis yooyu nag lañ am ci yu ñuy fàttaliku sëriñ moor sëy ñuy ñaan ci jàmbaari ku baax ka sëriñ tubaa seexul xaddim kañ doon wooye lampum njàmbur di sëriñ moor sëy yàlla na ko suñ borom fay te yokk ay leeram taas ñu ci barkeel